c'est Moustapha Mbaye Tafa le jeune. ville de Thiès ville d'Amary Ngoné Sabel ville de Mame Cheikh Ibrahima Fall porte d'entrée de Tivaouane et de Thiénaba ville de refus vie religieuse chers frères dans la vie de tous les jours se dresse devant l'individu des choix multiples difficiles à faire mais ces choix peuvent être par l'honnêteté et l'amour Mon amour pour Thiès, qui peut être attesté par beaucoup de gens, m'inspire et me pousse à tous les sacrifices possibles pour cette terre de grands hommes. Ces grands hommes qui sont nos références, j'ai failli dire nos boussoles, sont des exemples à suivre. Suivant l'exemple d'un grand homme, je vais nommer Moussa le maire Je me déclare désormais sur le Thiès, serviteur de Thiès. mbokk yi ginnaaw bi ma nuyoo famille religieuse yi nga xamante ne ñoo fi nekk ñëpp di ko dooree sunu famille sunu maam El Hadji Baro Ndiéguène di ko demee jaar si sunu kër maam Cheikh Ibrahima Fall di ko doolee sunu maam seen Saliou Touré yàlla yàggal ko fi te wéral ko lool Thiès dari dëkk boo xam ni dañ koo xamee dëkk bañkat xamee ko dëkku diine tax ba à chaque fois lépp loo xamante ni dañ koo gis mu nekk loo xam ni day gënal Thiès wala loo xam ne day xar day day yàqal Thiès ñu xar suñu tànk tubéy Thiès am ay mat am ay leader yu yàgg du def ngir Thiès ñu sacrifier seen bopp tax ba tey tafaale jeune am tey difficulté trop di def yenn choix yi mais yenn choix yi nga xamante ni li koy gën di yombal mooy fàtte sa bopp jiital bëgg-bëgg jiital honnêteté tax ba tey si nit ñi nga xamante ni dañ fi nekk di doxal ngir cees jëm kanam ma ci jël benn exemple rek muy ki nga xamante ni mooy monsieur le maire Talla di wax Thiès waa yëpp ki nga xamante ni mooy seen doom di seen di seen rakk di seen mag di Tapha le jeune dafa xar tànk tubéyam fas yéene nekk surga Thiès fas yéene nekk di serviteuru Thiès fas yéene tey di def di dindi pour li xamante ni Thiès moo jël kanam ci kanam koo rek wetu ki nga xamante ni moom lañ dénk dëkk bi muy monsieur le maire Talla Sylla ni mu nekkee surga Thiès nekk Baye Fallou Thiès laa ñëwee ma nit dafa la jeune sumeeku soluwaat nekk nga xamante ni mooy surga Thiès maa ngi leen sant di leen gërëm fu Thiès wootee loo xamante ni ñi ngi ci fu Thiès wootee lu ko arrangé ñi ngi ci dinaa ci jël léegi benn exemple boo xamante ni dañu félicité ko def cheminots yàgg nañoo grève yàgg nañoo grève de faim yàgg nañoo mitillu mais ki nga xamante ne dafa ne moom mooy Baye Fallou cees bàyyi lu bëri sacrifier boppam ba dugg ci sóobu si xar si tànk tubéyam ba ñoom ñëpp ñu fay leen seen xaalis loolu soo dee nit di jeune di gis nit di ko def pour dëkkam waroo lu dul xar sa tànk tubéy topp ci loolu muy tey ma leen di wax ne lépp lu Thiès déclaré lépp loo xam ne day daa nekk loo xam ne dafa jëm Thiès luy tax cees développé su jaree bakkan nañ ko ci teg su jaree leneen nañ ko ci teg. waaye lépp dañ koy ànd ak euh, jaraaf dëkk bi maire Talla Sylla lépp dañ koy ànd ak ki nga xamante ni moom la fi yàlla teg mooy monsieur le maire Talla Sylla alors euh, kon tey Abdoulaye Dièye Sikki Dior bi nga nekkaloon. Mhm. ko woon ginnaaw. waaw sànq wax naa ko na leen damay summeeku soluwaat. muy Ablaye Dièye ak bépp mouvement politique boo xamante ni Tapha Jeune nekkoon na ca ki nga xamante ni mooy Tapha le Jeune wan na ko ginnaaw nekk ci li nga xamante ni mooy intérêt Thiès nekk ci li nga xamante ni mooy tax Thiès jëmale kanam.